ñii nga xam ne ñooy takk der yi Baara nee na yàlla na réew mi di am jàmm ndax ngeen am jàmm te sëñ Tuubaa daana wax ne bu ngeen dee ñaanati jàmm de leen ci boole tubaab yi ndax ñoom bu amee jàmm ngeen am jàmm bu ñàkkee jàmm ngeen ñàkk jàmm nun tukkikat yi xam nañ ko kon yàlla na yàlla def jàmm fépp loolu la ma sëriñ Baara waxoon ne nanu ko jottali te yeesalaat pas-pas yi. sëriñ baara ba muy jottali ndigalul sëñ maam Balla bi sëñ mam Balla bindee leetar ba jox ko ne ko nañ ko tasaare daa waxoon ne màggalug dooyeli ga bu asamaan setee ku sa addiyee yembu ca lañ la bindaloon nanga ko jébbale si ku yémbaleegut balaa sëñ Muntaxa dem poroxaan na nga indi liñ la sant loolu la sëriñ Baara waxoon na na leen ko jottali yéen yi nga xam ne nag yéen a gudd bët te mooy télévision yi yéen a guddul nopp muy rajo yi yéen a guddub loxo muy journaliste yi bind yàlla na leen yàlla suturaal ca la ngeen di wax ak la ngeen di dégle ak la ngeen di bind bañ di ko téem te lépp doon dëgg te lépp yi doon jàmmi réew mi nee na yàlla na ko yàlla def sëriñ Baaro nee na ci turu Maam Balla yéen waa tund wi wi wër dëkk bi ak gone yi nekk bitim réew jàppale gi ngeen jàppale sëriñ Maam Balla ba mu ñemee ci kanam nee na mi ngi fàttewu leen de nee na ñaan yi muy ñaan te di ko tibbe ci xolom te di ko tibbe ci ka liggéeyal sëriñ Touba muy sëñ Abdou Dia nee na yàlla bu leen ci kenn jiitu yàlla bu leen ci kenn ëppale li sun borom di mayeet nee na muy xéewal yàlla na ko wàcce ci réew mi te wàcce ko ci àddina bi te def te jiital jàmm nag sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom ku ne xam ne ne mosoo dégg mu ne maye na waaye moom day jaayante sunu boroom na nga nu nongul li nu jaayanteeg sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nongul nu téyel nu sunu taalibe fii ak fa nu jëm ba du yàq ba fu mu nekk ñu temm ci kanamam jë